alors tey euh, ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bokk na ci li ñuy fàttaliku daaw atum 2022 lu ëpp ñaari téeméer daanaka ci ay passagers yu Air Sénégal euh, doon manifester du wane seenub naqar ci aéroport international Blaise Diagne de Diass ndax seen vol bi waroon dem ca New York dañ ko euh, programmé daanaka juróom benn yoon mu ñu xaar lu ëpp ñaari fan daanaka muy lu metti loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew yu am 22 novembre at yu wute ñu dellu si ñaar fukk fan ak ñaar ci weer novembre atum 2022 si le poète dramaturge sculpteur sénégalo-haïtien bi di Gérald euh, Chenet genn àdduna ca tubaab jalaw amoon juróom-ñeent fukk ak juróom ci octobre 1966 jot na adapté waaye it mettre en scène ca théâtre national Daniel Sorano les fiançailles tragiques écrivain guinéen bi di Djibril Tamsir ñaan muy auteur El Omar chronique de la guerre sainte doon téere goo xam ni publié na ko ci weeru sulet atum 1968 ci collection théâtre africain ñaar fan ak ñaar ci weer novembre atum 2006 si lañu teg loxo baratal du PDG entreprise BTP Jean Lefebvre Sénégal ngir faux et usage de faux waaye escroquerie teg ko ci kaw état bu Sénégal ci lu toll ci juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar mu jënteel gi ñu bàyyi ko ñaar ko fan ci weeru mai atum mille 2011 gannaaw lu ëpp ñeent at ñi amal lii di procédure bi ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru novembre atum 1963 si la ñu faat kii di John Fitzgerald Kennedy ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru novembre atum 1967 jëm ci résolution deux cent deux conseil de sécurité des nations unies ñeel Moyen-Orient

ndax roppalaan gi nga xam ni moom la ñu waroon jël yóbbu leen ca New York jot nañu ko programmé lu toll ci juróom-benn yoon. Air Sénégal su wàññee comme nu ma ko waxee ci communiqué am euh, ligne euh, Dakar euh, Lyon Dakar Marseille et Dakar Barcelone ba pare certainement comme ni ñu ko waxee wàññi benn vol sur six vols par semaine au lieu de sept. bon évidemment euh, dina ci perte mais xam nga aussi sooy def dara day fekk nga man ko dañu am habitude di topp euh, dison la gestion politique une compagnie aérienne euh, dañ ko def pour gagner xaalis et bi ci topp mooy yeneen compagnie low cost ah ñi nga xam ne li ñuy fayeeku cherul dañu ñëw xaw wàññi prix yi des Vueling pour Barcelone Transavia bi def Lyon et Marseille et Neo pour euh, Milan ñoom dañ ñëw dugg ci léegi nag li Air Sénégal doon am ñoom dañ koy séddoo ak ñoom waaw euh, New York bi sax euh, dégg naa bon dinañ seet nu ñu def plus tard pour xool parce que New York aussi ligne la bi nga xam ni c'est pas toute l'année lay lay lay lay lay fees et puis client yi ngay yóbbu du client ay sénégalais rek la. clients yi jógewuñu Sénégal parce que mënoo teg avion Dakar na yaa ngi jëm New York bëgg ko feesal au départ de Dakar loolu ça marché marche pas yi soo soo leen di kii da nga leen di jëli fu sori da dangay am ay avion yu ndaw yu dem jëli nit ñi ba N'Djamena ba Afrique centrale ba euh, même ba Abidjan dëkk yi ñu wër yëpp nga dem fa voilà ou bien nga signer avec. Euh, Euh, ay tour opérateur ay euh, des des sociétés yu indi ay touristes fii. Air Sénégal foog mu defaru bon bi ci des mooy nañu jéem a defar seen euh, la partie commerciale parce que là y a vraiment des choses yi nga xam ne war nañ ci wax waaw soo ko waxee nag ñu ne la da leen contre. kenn du moom dara ba pare di ko contre Sénégal ñëpp ko moom Sénégal yëpp ko moom dañu bëgg mu réussir mais nag ñoom nañuy déglu nit ñi waaw parce que Euh, compagnie aérienne kii fay xaalisam day seet fi nga xam ni fa lay amee euh, disons satisfaction voilà ñoom it nañu déglu nit ñi kenn waxul kenn jàngaloon li ñuy def mais am na ñu nekk fii Sénégal ñoom it nekkuñu Air Sénégal xam nañ exactement comment ça marche nit ki xaalisam la xam mais soo ñëwee ñu luy bëgg a maltraité mbaa mu euh, def la ay kii y a même pas d'excuse ah kooku client bi foo neex mu dem donc war nañu defaraat seen aspect commercial pour nit ñi mën a dellu si. waaw. gis nga mbooloo mi ni xamaguñ kañ la dem changé nañ poste bi mi ngi nii ma la koy envoyé. wala ñi ñu toog nii depuis treize heures gaa ngi fi treize heures dañ toog Air Sénégal mi euh, bi rappelé na ko sànq ce ne sont pas bu ñuy fàttaliku ci manifestation de colère boobu noonu bëri woon na ay nit euh, yoo xam ne du ñu ay sénégalais li ciy gën a ñaaw mooy xaj na. Euh, maanaam turu Sénégal vitrine Sénégal image yu Sénégal moom mooy dem ak jafe-jafe yi ñu gis ni Air Sénégal mi ngi koy dundu démb rek les échos mi ngi doon euh, génn benn article di wax ci ay destination européenne yoo xam ne dañ ko fermé à la réservation et puis destination New York également nekk en sursis suñu aéroport bi tamit desul ginnaaw ci jafe-jafe yooyu parce que problème management la Air Sénégal am muy compagnie boo xamante ni amoon na ci yaakaar ndax dafa am yeneen compagnie yu ko fiy jiitu yoo xamante ni daanaka ci fayit lañ mujj mhm. état bu Sénégal euh, def ci ay moyens yu yi jox leen ko ngir ñu mën a jënd sax ay roppalaan mais il s'agit pas d'acheter parce que des fois euh, mbiram transport aérien moom day secteur boo xamante dafa fiir te am lu mu laaj aussi mm-hmm. ci wàllu stratégie ak xam-xam comme mm-hmm. ni ko le doyen ngay da waxee parce que mm-hmm. moom mi c'est un d'Air Afrique ku na xam Air Afrique déjà ci wàllu doole sax moo ko ëppoon Air Sénégal ndax compagnie panafricaine la woon mais la ko këpp gis nañ ko donc xëy na ñoom loolu la ñuy bañal Air Sénégal moo tax ñuy alerter boo a compagnie bu ndaw da xam sa bopp bala ngaa jël destination yu guddi yi déjà rek la problème Afrique parce que toog nañ fi benn jour ñu ne suspendre nañ sax euh, roppalaan bi waroon a dem fële nga xamante Afrique centrale alors que am na doomu Sénégal yoo xamante chaque jour ñu dem Afrique centrale mm. transfert bi koy def fii la doomu Sénégal ñoo ko moom mais gis nañ ñuy desservir la sous-région parce que loolu petit à petit ngay def ba fi Milan et Paris moo tax avion bi des ñu ne dañu luy roppalaan wala des fois mu passager yi dem ba deru compagnie bi di ci mm-hmm. yàqu loolu quand même beneen bi nag comme ni ñu waxee parce que dañ ne woon bëggoon def AIBD ëpp ëpp nag comme ni mu ko waxee da def voilà da ngay dem xool bu fekkee ne da ngay dem York mais yeneen yi nga xamante ay passagers parce que Sénégal dafa ubbeeku ci océan bi te ku a gaawee roppalaan dem ñooy jëli client yi indi leen fi yàkkale leen fii yow nga yab leen nga mën leen yóbbu sinon da ngay yóbbu xott avion boo xamante ni day vide la dem quand même suñu ma jambal Diagne mm. mooy leen lundi am na lu am solo loo xam bind na ko ci rang bu gudd pour nga ñëw da rang bu infrastructure baa ngi yàqu mm-hmm. gis nañ fa également njuuj njaaj yeeg tappale gi nga xamante des fois da ngay nga ñëw kii xam la daal di mm-hmm. ay passe droit yoo xamante ni nee na ci waxut mën na bokk loo xamante aussi dina yàq darab Sénégal ba nga xamante wax nañ ko waxati ko fi saa yoo ko waxee nag ñu ne la dana xeex wala nangam te liñ fi nemme gis ngeen ko même les DG qui viennent wala ñuy recruter des personnes yoo xamante am nañ compétence ay militants la ñuy politiser li nga xamante ni mooy secteur bi alors c'est un secteur boo xamante ni amul compétence waroo faa dem même assistance au boo amul compétence euh, yi ñu tënk